salaamaaleykum maa ngi jëloon ziar bu baax a baax ah waaw loolu la kon tawfeex la ndax daanaka man daal maa ngi côté buntu bi donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li jëm ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla. sëñ Fallou alhamdulilah. central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi.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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر يا كتاب bokk yi ànd euh, seen émission wàccaayu màggal tey ñoo ngi fii ci Touba Mbacké ci dëkk bu sell bi dëkku euh, bu sell barab bu tedd ku tudd Serigne Touba dana tudd euh, fii ci Daaray Kamil Daaray Kamil ku ne xam na barab bu ràññeeku la lool ci yoonu murit barab boo xam ne mboolem mbind moo xam ne Serigne Touba bind na ko boo ñëwee ci barab bi da ko fekk waaye nag ñu am am solo nekk fi di ko saytu saytu am solo woo xam ne boo duggee ci biir danga fekk ñu organiser mbind mi ci anam yu rafet rafet ku ne xam na ne sëriñ bi daf daan bind ci yu euh, bëree bëri daana bind ci mbind moo xam ne dafay jëm ci tagg yooyu bi saa salaam mbind moo xam ne daf koy way wala mbind moo xam ne ay salawaat ala nabi lay nekk am mbind moo xam ne it euh, mu ngi ci biir daari kaamil muy mbindum alquran mu rafet moo xam ne ñenn ci njabootam ñoo ko bind incha allahu taala yéen ñi ànd ak seen émission wàccaay bu ñu duggee ci biir dinañu tàllal suñu micro Euh, suñu micro danañ ko taal incha allah Serigne Ousseynou Diatara muy kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk liggéey bi incha allah mu def ci ay leeral yu am am solo yaakaar naa bu ñu ko suivre rek mbooleem loo xam ne umpoon na la ci daaree kaamil bu soobee yàlla dana leer. rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ngeen nuyu leen ziyaare bu baax di am mbégte ci seen teewaay fii ci barab bu sell bii di Daaray Kaamil euh, di barab boo xamante ni barab bu macha allah la ci wàllu xam-xam barab la boo xamante ni barab buy jëmmal yoonu murit ci wàllu xam-xam euh, man maa ngi tudd Ousseynou Guitara euh, nekk fii ci coordination liggéey bi nekk coordonnateur barab bi Daaray Kaamil ci kilifa gi mooy responsable bi sëñ Moustapha Aïdara bi nga xamante ne mooy kilifa barab bi waaw jërëjëf ci laaj bi daaray kaamil euh, ñu ngi ko taxawal ci atum 1977 ci xilaafa ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké ñi nga xamante ne moo ko amal atum 1977 euh, waaye nag yéene ji ak li tax mu taxawal ko bëggoon a mottali lenn ci li yéene Cheikhul Khadim yi nga xamante ne amoon na ko ci dëkkam bii di Touba ndax euh, ku ne xam na ne Serigne Touba ku bëggoon xam-xam la ko fonkoon téere la ba li gën a indi euh, tabax bi ak li gën a indi daara kaamil bokk na ci Jurbel Sëñ Tuubaa baraag yi fa nekkoon yu bari lool lu ci bari ay téere la fa dencoon euh, denceen boo xamante ni denceen bu macha allah bëggoon ko lool. waaye nag yàlla dogal téere yooyu am ci xawoon na sànku am ndax tàngooru barab ba am yoo xam ne xawoon na lakk euh, mu nekkoon yéene joo xam Sëñ Tuubaa da ko amoon taxawal ko ci foofu ci Jurbel yéenam jooju nag la ñëw eggale ko fii. bi mu koy taxawal nag jékki-jékkiwul rek ñëw euh, teg ko waxtaan na ci ek njabootu Seexul Xadim gi mu fi jamonte loon ak mboolem borom xam-xam yi nga xamante ni seen xam-xam na ci wàllum liggéey bi mu woole ñun ñëpp ku ne mu laaj sa xalaat yaa koy taxaw euh, ginnaaw ba mu taxawee nag njëkk a def mooy euh, fexe xam fànni xam-xam yi nga xamante ni Sëñ Tuubaa bëggoon na ko lool te mu nekkoon ca Jurbel muy téere xam-xam yooyu mu fexee xam fànn yooyu ñu bind ko ci benn liste mu fexee lijjanti ci liste boobu lijjanti ko ci lu baree baree bari daal di yebal euh, sëñ Modou Mamoun Niang mi nga xamante ne moo doon taxaw liggéey bi nekkoon coordonnateur bi ci réewu naar yooyu fenn xam-xam yi fa nekk mu wut ca fàggu ci la ca lañ ca bëggoon ak lañ ca bëggoon lañ ci soxla woon mu indi ko ci barab bi. boo gisee ne euh, daari kaamil buñ ko tuddee euh, ñu baree bari ci mbokk yi danañu yaakaar ne mbindum Sëriñ waaye dafa mel ne yéen ñi ne ci barab bi ak ku ñëw ci barab bi ba xool ko dafa mel ne da nga fi gis ay xeet yi fànni xam-xam yu wute lool naka ngeen organiser barab bi ci diggante mbindum sëriñ bi ak yeneen mbind yi nga xam ne dafa aju ci moo xam adabul arab yi wala mu aju ci yenn téere yi nga xam dafay jàngale diine wala diine yi ak yeneen bi mbind mi koo xool yi dafa mel ne da ci fekk ay euh, xeetu wayu yu wuute yenn yi dana mel ne dana jot ay salawaat yi mm-hmm. dem ci yeneen yeneen la sëriñ bi hmm. jërëjëf euh, si laaj bi maanaam euh, organisation bi ak euh, taxawaay barab bi loolu lépp Cheikh Abdoulaye la ndax ni ñu ko organisé moom moo ko organisé ndax bi mu ñëwee nee naa la fa mu koy defar woon ay borom xam-xam yoo xam ne seen màcc seen xam-xam màcc na ci wàllu bibliothèque mu laaj leen nan lañ koy tabaxee ak yenn jumtukaay lay lay soxla mu fàggu yooyu yëpp indi ko. waaye avant muy fàgg nag maanaam préparé woon na yéen téere moo fi ñëw loolu nag waajaloon na ko waajal goo xamante ni waajal gu mu sonnoon lool def ci ay coono yu baree baree bari def ci alal yu baree baree baree bëri ndax ku xam ne ne mbindum Sëriñ Tuubaa lu tasaara woo tasaawoo tasaara woon nekkutoon ci benn côté waaye moom bi ñëwee fépp fu mu yëg ne mbind mi am na fa Sëriñ Tuubaa bàyyi na fa mbindam mu dem wala mu yable jëli ko indi ko fii nga xamante ne mooy Tuubaa dajale fi lu toll lu baree baree baree bëri bu ko dajalee pare nag jékki-jékkiwul rek maanaam imprimé ko daf ko bindluwaat kon ñu ngi si téere yi saal yi daf ko bindluwaat ci loxo mu tànn ñi nga xamante ne macha allah seen xam seen loxo màcc na ci wàllum mbind mu bindluwaat leen xasida yooyu ñu bind ku mbind mu set mu sell moo xamante ni ku ko tii mën koo mën ko jàng léegi loolu mu ci jublu woon mooy fexee tasaare mbindum sëñ bi ndax bu dul toon ak moom lu baree bari moom Cheikh Abdou Lahad duñ ko gis ci mbindum sëñ Tuubaa ndax farlu gi ñu ci amoon ak pësteef gi ak dogg gi euh, tax na tey lu baree bari ci mbind mi ñu am ko moo tax moom euh, liggéey boobu mu def ko liggéey boo xam bu mucc ayib la liggéey bu bu méngoo xam-xam liggéey boo xamante ni wax dëgg yàlla ku ko xool xam ne lii sëñ bi dépasse na ci alal ju baree bari def ci ay efforts yu baree baree bari li nga wax ci wàllu organisation bi nag moom moo ko organisé moo ñëw xool saal yi def ko trois salles si jamono yooyu ñetti saal ah, saal bu njëkk bi lim ciy jagle mooy lépp lu jëm ci mbindum alquran mi nga xamante ne lenn ci njabootu Cheikhul gi bind nañ ko ak lenn ci sët yi ak ci taalibe xam saal boobu boo fa duggee muy saal 1 muy saal saal alquran lépp lu jëm ci wàllum mbindum euh, sët Seexul Xadiim bi ñu si bëree bare bari wala ay ak njabootam ay doomam ñu si bëree baree bari seen mbind loo xam ne ngi saal boobu mu tuddee ko saal boobu nga xamante ni lépp lu jëm doon lim ña fa bind bëri nañ lool ñoo xamante ni ay kàngam lañ ci loxo ci bind ay kàngam lañ ci bind ñu nga ña ci saal boobu buñ ci lim ku mel ni sëñ jili moom sëñ ablahat ku mel ni sëñ ablahat soy bu ku mel ni sëñ euh, Modou Habib moom sëñ Ablaye borom bi ku mel ni sëñ euh, sëñ sëñ Moustapha Salih ku mel ni sëñ Moulay sëñ Abibulaay Bousso ku mel ni sëñ euh, Gede sëñ Gede Mbacke ku mel ni sëñ Makhtar Bousso ku mel ni sëñ Bousso Ilimane euh, ku mel ni sëñ Bassirou Dia sëñ Mori Gaye ak ñu ñeen ak ñeneen yoo xamante ni ña nga fa ci ay kàngam yoo xamante ni seen i xam seen i mbind ña nga ci saal kon saal boobu saal alquran la boo xamante ni mbindum loxo kese nga fa fay fekk ak lenn ci ay nta Sëñ Tuubaa ay manuscrits ay ay maxtutaat yoo xamante Sëñ Tuubaa moo ko mooloon boppam muy ay laal wala muy ay gaal wala ay téere kon foofu sëñ Abdou Lahad li mu fa préparé woon mooy benn musée genre musée boo xamante ni dafay bàyyi ay barkeelu Seexul Xadim te ku ñëw mën caa barkeelu mën saa jëriñu mi ngi ci boobu kon salle 1 bi lépp lu jëm ci wàllu mbindum alxuraan mi mi ngi foofu ak manuscrit Seexul Xadim yi bu ñu jógee ci salle 1 bi dañu dem ci salle 2 salle li fi nekk mooy salle xasida li fi nekk lépp ay xasaayid la yoo xamante ni ah, Cheikh Abdou moo ko dajale woon ci jamono yooyu daf ko ay dawaawin ay diiwaan yu am solo yoo xamante ni boo ñëw da ko fekk nga xamante ne jamono yooya gisoon benn xasida jafe woon na waaye moom bi mu ñëwee daf ko yombal li ñu ko yombalee mooy fexe ne xasida bu ne mu boole ak famem mooy def ko ab diwaan kon diwaanu lépp lu jëm ci wàllum xulumu diin diwaan taw yi fiqh wata tasawuf wa naxu da koo jël lépp lu sëñ Tuubaa wax ci wàllum tawhid lépp lu mu wax ci wàllum fiq lépp lu mu wax ci wàllum tasawuf ak naxu daf ko classé daf ko diwaan tawhid fiq wa tasawuf ak naxu xam diwaan bu ko tijjee mbooleem euh, jëm ci wàllum téere xam-xam yi sëñ Tuubaa def ci wàllu diine ak ci tawhid ak yu bëree bëree bëri mu ci mu ci ci diwaan boobu nga ñëw ci beneen diwaan mu tuddee ko diwaanu euh, sahaadatul muridi fii am daay xayril mursalin lépp lu jëm ci ay tagg yoo xamante Seex Xaadim tagg na ko yónent bi sallallahu am daax yooyu yëpp suñu Abdou Lahad Kalasi ne ko tuddee ko diwaan Sanatul Muridiyya nga xam tey ku yëdu gëstu di xool li Sëriñ Tuubaa gës li Sëriñ Tuubaa wax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñu ko tagg ci ay jukkoom ay melokaanam mi ngi foofu nga jóge ci foofa dem diwaan bi ñuy wax diwaan Sirkul Jawaar fi axbaari nabi lépp lu jëm ci ay salawaat ala nabi def na ci ay xasida ay xasida yu takko takk ñu ngi ci ci diwaan boobu lépp lu jëm ci wàllum fulkul masoon sikrullah turu yàlla yi baree baree bare ñu ngi ci euh, foofu ci téere boobu nga dem ci quraan ya diwaan mu xayyada bil ayatul quraan ya diwaan boo xam ne koo tënk ay ay alquran Cheikh Abdoulaye jël ka ko def ko yëpp ay ay ay quraan yaat nga xamante ni mboolem diwaan yi xasida yi jëm ci am diwaan boo ne ko tuddee diwaan mu xayyada bi xayri ayatul quraan diwaan boo xam ne da beneen dem xam lépp lu jëm ci waanu nurul daare ni salawaat ala nabi yu bëree bëri ñu ngi ci diwaan boobu boo jógee ci xasida yi nag Cheikh Abdoulaye dina waat ci beneen partie mooy témoignage yi témoignage yi nga xamante ne naari Mauritanie yi defoon nañ ko Seexul Xadim mu nekk ay témoignage ay tagg ay am daax yu am solo yoo xamante naar yi wooye nañ ko Serigne tubaa mi ngi ci diwaan boobu nga xam ne diwaan Sonra Mauritanie lañ koy wooyee nga jógee ca dem ca diwaan bi ñuy wax diwaanu si Ibrahima Almasari mooy diwaan Sonra Sénégal xam si Ibrahima ko taxaw woon waaye ñu bari ci ay wax woykat ci yoon wi wala ci ñuur ci yoon wi am na lu bari luñ seede Serigne Touba ma ngi ci diwaan boobu waaw kaw li ma njëkk a wax rek ndax euh, bokk na ci li sanc daare kaamil loolu li nga mujj wax ndax Serigne Touba dafa fokkoon fonkoon borom xam-xam yooyu lool lépp lu jëm ci wàllum tafsiru Qur'an daf ko fonkoon lépp lu jëm ci wàllum ulumul Qur'an lépp lu jëm ci wàllum fiqh droit musulman ñëpp lu ko soxla woon. moo tax dinaa la bi mu ñëw li mu njëkk a def mooy dafa fexee xam Serigne Touba fànni xam-xam yi mu bàyyi woon Jurbel mu jëm ko fàgg ko ñu amoon ko benn liste dem jëli ko bitim réew mooy yi ma la njëkk wax. kon mooy salle 3 boobu nga xamante ne salle saxaafa amal lañ koy wax culture générale nga xam xeetu xam yi nga xamante ne ni da koy soxlawoo ci dundam wala ci euh, leneenam ma nga foofu nga xam te lépp lu jëm ci wàllum diine maanaam hadis hadis yoon salaa sallam mboolem ruwaat yi ñu fi bëree bëree bëri maanaam defee na nga dugg fa ko fi benn euh, benn raawi boo soxla woon ci wàllum hadis yoon salaa sallam wala nga dugg ci wàllum tafsir wala nga dugg ci wàllum maanaam ulumul quran wala nga dugg ci wàllum islamique dirasal islamique wala nga dugg ci wàllum fiq fiq islamique maanaam euh, droit droit musulman nga xam te ne fiq moom mazahib yëpp mazhab boo laal ab ab téere ma nga fa nga jugee fa dem ci wàllum maanaam iqtisaadiya ba ci wàllu àdduna ji nan lañ koy jëfandikoo suñu adduna ji suñu abdoulaye indi ci quantité bu rëy rëy ci wàllum naka lañuy ñuy économie bi naka lañu koy xamee ak naka lañ koy jëfandikoo nga jugee dem ci maajim mi dictionnaire indi na ci ay téere yu baree baree bëri nga dem ci wàllum science loo xam ne ni ñu koy sol seen dund muy mathématique wala muy médecine wala muy agriculture wala muy euh, euh, euh, lépp lu jëm ci wàllum doomu aadama lu muy jumtu ko ba ci wàllu kimia ci wàllum Euh, maanaam togg tabq am na ci ay téere yu bëree bëri ba ci handasa mooy architecture indi na ci fan yëpp indi na ci ay ay kii yu bëree bëree bëri bëri yoo xamante ni kon nit euh, fii njëriñ lu bëree bëri mu fii ci wàllu xam-xam léegi yéen ñi nga xam ne yéen a yor bi euh, dafa mel ne mu taala boobu mooy dundal barab bi parce que téere yi liggéey koy dundal mooy ñu koy jàng moo tax sëñ Moustapha Diatta bi nga xam ne kilifa gi bi mu fi ñëwee daal 2004 li ko sëñ Saliou njëkk a wax xam ndax moo ko joxoon ndax baa ñu ngay jariñu ci téere mbaa ñu ngi koy jëng jariñoo ci la sëñ Moustapha xamee ne sëñ Saliou mi bëgg na barab bi dund bëgg na téere dund li koy dundal nag mooy ñu koy yër di ko liir ci la créé salle de boobu nga xam ne bi ñu ko créé ci la ñu baree baree doora xam daare kaamil mooy lan dëgg dëgg dëgg ci la ñu baree xame ndax bu ñu tudd daare kaamil rek ñu bari alxuraan la jàpp ay kaamil la fekk bibliothèque la maktab la boo xamante ni lépp lu jëm ci wàllum euh, jumtukaay maktab ma nga fa moo tax xaama ba boo ci duggee euh, dañ ko organiser organisation boo xamante ni tey boo fa duggee rek day mel dugg nga ci maktab bi fépp ndax lépp saal yi ma lim yëpp fànn bu ma ciy wax rek ma ngi ci saal boo wax sant yow bu ne ma nga fa nga xam kii liir bu duggee euh, bu ne saal damaa soxla wàllum ci saxaafaam am na am yi génn dem saal saxaafaam bu dee si ak xasida soxla juróomi génn bu dee Qur'an juróomi génn lépp lu mu soxla ñu foofu ba pare it maanaam dañ ko informatiser du question rek maanaam dañoo ñëw rek teg noonu mun a ñëw lépp dañ koo def norme téere boo ci gis am na numéro téere boo ci gis am na am na place am tey boo ñëwoon da nga xam bara place sàngam téere sàngam manqué na fa ci numéro sàngam moo fa manqué su ko defee yow nga lijjanti ko ba dañ ko numériser téere yëpp jékki-jékkuñu rek teg dañ ko lépp dañ ko numériser lépp ci machine yi nga xam nañ ko war a sigir sigir nañ ko yi ñu war a scanner ko nga xamante ne bi ñu nekk di salle 2 yëpp dañ ko bindaat dañ ko ta dañ ko tibaaxawaat nga xamante ne tey boo dikkee men euh, ndax xatt bi ñor mooy xatt marque maghrib bii bi waa sarxi mën nga ko jàng ndax amoon nañ ci jafe boobu lu bare bare bare waaye amassé nañ ci lu bare bare bare ba tey euh, diwaan yi nga gis yëpp bindaan nañ ko ci mbind moo xam ne mbind moderne la boo xam ne tey ku ñëw mën nga koo mën nga koo jàng euh, loolu nga wax moo waral activités yi xam-xam yi ndax sëñ Saali ba tey dafa mas wax sëñ sëñ sëñ Moustapha Euh, ne ko ba yéene ngay génnee téere ya di ko jàngal nit ñi di ko leeral nit ñi ndax li nga wax nii mooy indi problème yu bare baree bari ndax am na koo xam te ni dégg-déggam mën naa gàtt moo tax sëñ Moustapha boo gisaan ci koor gi day génne benn téere di ko saraa di ko jàngale di ko leeral wala léegi ñu wax benn benn conférencier wala benn borom xam-xam mu ñëw jël benn téere di ko jàngale moo tax activité yooyu moo jur tey bi ba tey bi tey ñu baree bari xam ko ci àdduna moo tax comme conférence koor gi ngay gis conférence safari yi ngay gis yooyu yëpp dañ fi ñëw comme ni nga wax ne nit day ñëw di liir am problème dégg-dégg ci benn baat am nañ ci ay techniques yoo xamante ni ci euh, benn plateforme bu ñu liggéey ci internet bi tey baat bu ne am na baat bu ko war firi tey am na ndax li ma la wax lépp dañ ko informatiser tey baat bu la jaaxal rek soo ko dugalee ci euh, machine bi mu firi la ko ci langue bu nga soxla te du question wàllu arabe kese moo fi nekk am na ci langue yëpp am na arabe français anglais italien espagnol allemand ba ci sàppango ci sinwaa xeetu langue yëpp ñu ngi fi ndax euh, Sëriñ Sàmbay Sëriñ Abdoulaye da ko joxoon ndigal boobu mu traduire Masaalikul Jinaan bi ak téere xam-xam yi ñoom te sori si xaar yooyu traduire na ci lu bare bare bare tey mi ngi mi ngi mi ngi fii kon ñu bare bare dañuy bind indi ay bindukat yu bare bare bare seen boobu nga xam te ñu bari ngay dégg Sénégal wala ci Touba wala a ak feneen ci àdduna ñu ci bind yi bari dañuy indi fii ci bibliothèque mu nekk ay échantillon nit yi lii lañ leen jëlale woon ci bu tedd bii di Daaray Kaamil Euh, incha allahu taala ñoo ngi leen jox dig dege ci yeneen barab yu tedd ci seen émission bii nga xam ne mooy émission wàccaay màggal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi ak digital store coono wàcc na leen jaaxle jeex na digital store indi na gamme smartphone ak tablette android yu bees tax dëgër këcc di ay téléphone yoo xamante ni entreprise bii di Coscol daf leen defar ba noppi garanti leen juróomi at ak batterie yu dëgër yu nangoo yàgg lool te wér. jënd leen gaaw seen gamme téléphone M5 wala X5 wala t wala S4 juróomi at lañ leen garantie looloo ngi doog am nag ci téléphone mobile entreprise bii di Crosscall ñu ràññeeku ci liggéeyum télécom moo def li ni mel gaamu téléphone yi M5 X5 t ak S4 di ay téléphones yu bees ndox du leen yàq choc du leen yàq dara du leen yàq mën ngeen dem ak moom fu leen neex moo xam bureau la wala géej wala sax ngay sàmmi wala ngay dem tool wala ngay sport wala ngay liggéey ci chantier dara du leen yàq taw leen gaaw ci sunu boutique showroom bi nekk ci avenue Bourguiba wala ngeen woote ci numéro bi 33 825 73 00 wala Soumbédioune sur la corniche ci numéro bi 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien